ñoo ngi dellu di balu ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan suñu boroom boole ñu baal euh, di ndokkeel sénégalais yëpp ci weeru koor bi ak karam bi di sant yàlla bu baax a baax a baax bi mu ñu mayee ñu ñëw fii def li nga xam ni moo ñu war en tant que citoyen mooy voté ci élection yi comme ni ñu ko doon defee élection yëpp di ñaan suñu boroom élection yi am ci jàmm ak ci dal et bu jàllee ba résultat yi génn ki yàlla jaarale ci peuple sénégalais yi teg réew mi ci loxoom inauguré Sénégal boo xam ni jàmm ak dal ak stabilité ak kaaraange dana fi mag Sénégal goo xam ni incha allah ndaw ñi dinañu mën a am liggéey dinañu am xëy Sénégal boo xam ni xéewal dina fi bari incha allah loolu la ñaanal Sénégal yàlla na ko suñu boroom def di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen